bokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ni faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ni moom mooy docteur Babacar Diop docteur Babacar Diop nekk médecin urgentiste euh, ñu koy sant di ko gërëm ginnaaw bi mu nangu uyu invitation bi docteur ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM jërëjëf euh, soxna Fatou ñu ngi mm-hmm. ziar euh, mbokk téléspectateurs yëpp di leen euh, sant di leen gërëm di sawar tamit ci ñëw ci li nga xam ne moom mooy émission bi nga xam ne moom mooy SOS santé. Mhm. ñu ngi tudd comme ni ngeen ko waxee docteur Babacar Diop. Mhm. ñu ngi nekk médecin urgentiste actuellement ñu ngi servir au niveau ci hôpital bi nga xam ne moom la ñu hôpital régional de Fatick. Mmh. merci beaucoup. d' euh, merci beaucoup pour sa euh, présentation waaye merci beaucoup tamit euh, ci yaatal yi docteur tey suñu émission bi di SOS santé ñu fas yéene waxtaan ak yow lépp lu jëm ci hypertension artérielle dañ koy farataal di déglu hypertension artérielle hypertension artérielle yow tey boo ñu doon expliquer ci anam bu gën a yaatu bu ñuy wax hypertension artérielle ban jàngoro la concrètement waa jërëjëf euh, soxna Fatou toujours ci laajte bi nga laajte mu nekk euh, ak laaj bu am solo mm-hmm. euh, bu ne nee hypertension artérielle dafay nekk loo xam ne feebar boo xam ne c'est ce qu'on feebar bu chronique la mooy feebar boo xam ne mën naa nekk sa yaram nga dund ak moom mm-hmm. bokkut ak li nga xam ne mooy feebar buy xam ne c'est une maladie ce qu'on appelle transmissible maintenant hypertension artérielle moom mooy lan moom mooy tension te bu ñu nee tension mooy deret bi nga xam ne dafa nekk ci yaram. Mhm. dafa am fu muy jaar. ci ay mhm. raakool comme bu ko mënee wax pour nit ñi mën a comprendre. Mhm. léegi deret boobu noonu noonu ci raakool yi muy jaar daa am doole boo xam ne moom la ci jaaree. moom ku mënee jël benn benn explication bu gën a terre à comme tey boo tijji woon robinet. robinet doole bi muy am. pression bi moom la ñuy wax pression bi mhm. maintenant maanaam doole googu noonu ci raakol bi nga xam dañ ko branché ci robinet bi loolu la ñuy naatamlee li nga xam ne moom mooy hypertension mhm. maintenant bu ñu nee hypertension bu ñu nee hyper mooy lu yéeg mhm. maanaam bu ñu ciy lu dafa am dara luñ koy comparé liñ koy comparé moom mooy lan dafa am ñaari nombre yoo xam ne xol bi bu dee daw moom mooy jamono ji nga xam ne dafay liggéey ak jamono ji nga xam ne dafay noppal jamono ji nga xam ne dafay liggéey moom la ñuy wax tension artérielle systolique jamono ji nga xam ne dafay noppalu moom la ñuy wax tension artérielle diastolique mhm. maintenant jamono ji muy liggéey normalement tension bi warta ëpp li nga xam ne moom mooy treize ñu koo xam ci cent trente euh, centimètres cubes de mercure mhm. maintenant bu ñu demee ba tension boobu noonu noonu noonu dépassé li nga xam ne moom mooy treize daanaka agsi si li nga xam ne moom mooy quatorze maanaam mu wa ilaa mu tollee ci quatorze jamono jooj dañuy wax li nga xam ne moom mooy hypertension artérielle systolique mhm. maintenant su demee ba nombre boobu comme ni ma ko waxee woon dafa am ñaari chiffre benn bi xol bi di liggéey ak benn bi xol bi di noppalu mhm. jamono ji xol bi di noppalu tamit moom la ñuy wax tension artérielle diastolique dafa am tamit benn nombre boo xam ne waru koo dépassé dép nombre boobu noonu moom moo nekk nombre bi nga xam ne moom mooy huit mhm. suñu demee ba nombre boobu noonu dépassé huit moom mooy nga am neuf dix ci kaw Mm-hmm. dañuy wax tamit nit ki dafa am ce qu'on appelle une hypertension artérielle diastolique mm-hmm. maintenant nag suñu boolee nombre boobu noonu moom mooy la nombre bi ëpp li nga xam ne mooy treize ba pare boole ci ëpp li nga xam ne mooy neuf mm. jamono jooju dañuy wax ce qu'on appelle une hypertension artérielle systolo diastolique moom mooy mhm. heure bi xol bi di noppalu mhm. dafa am waaye tam heure bu xol bi di liggéey tam amee tension mhm. euh, mu mel ni nag fii ci Sénégal euh, dañuy farataal euh, di wax ku xamante ne sa tension dafa yem douze wala onze onze onze virgule cinq sa tension stable na ban ban moment la jàpp ne tension nit ki nekk na tension bu normal d'après li nga expliqué ni yëpp Euh, boo boo seetloo li may wax euh, bu ñu nee tension dafa yéeg dafa am nombre buñ koy comparer mhm. buñ nee tension dafa wàcc tamit dafa am nombre buñ koy comparer mhm. waaye bu weesoo loolu tamit kenn ku ci nekk dafa am li nga xam ne moom mooy tension boo xam ne da nga koo judduwaale mhm. tey jii nii nii buñ nee ban tension moom moo normal mooy tension bi nga xam ne nit ki maanaam am na chiffre systolique bi moom mooy xol bi bu jamono ji ni yëngu moom mooy tension systolique bi ma leen doon wax bu nekkee c'est une tension qui est inférieure ou égale à treize. inférieure ou égale à treize. inférieure ou égale à treize. mooy tension systolique bi que la personne tension maanaam nit ki bu amee onze. Uh-huh. bu amee douze bu amee treize yooyu noonu yëpp ce sont des chiffres tensionnels yi nga xam ne baax na. Uh-huh. mais loolu moom tam bu ñu koy wax tamit dafa am jamono li ñuy wax rek contexte par contexte la. d'accord ndaxte tey jii nii bu ñu jëlee tey soxna Fatou bu dee dafa moom mu juddoo. mu doon def li nga xam ne moom mooy ay tension yu ndaw <laughs> comme tey di nga gis nit koo xam ne dafa amee tension artérielle systolique bi mu nekk à neuf wala dix maximum maximum bu bëree ba bëri dix lay nekk ci moom moom mu dem ba jëmmi jamono tension bi yéeg ba treize quatorze boo xoolee ci kooku noonu noonu buñ définition bi dañ ciy def très attention tamit ndax c'est ki juddoo wala ki nga xam ne dafa tàmm di def ay hypotension bu demee ba tension bi am na nu muy varier yeeg ci treize kon kooku day day day day bokk ci li nga xam ne tey jii nii moom mooy définition hypertension donte àggagul quatorze mhm. moo tax tension bi nit ki njëkk di am mhm. wala tension bi mu faraloon di am mhm. loolu tamit ci définition bi dañ ciy bàyyi waale xel mais nag li ñu mën a wax de façon générale ramassé parce que loolu ay cas particulier la li ñu mën a wax de façon générale moom mooy lan nit ki nga xam ne tension am dafa yées li nga xam ne moom mooy quatorze moom mooy treize douze onze jëm ci suuf kooku noonu noonu tension boobu dañuy wax ne tension bu normal la mhm. li nga xam ne moom mooy bu xol bi dee yëngatu maintenant bu xol bi dee noppalu tamit moom la ñuy wax tension artérielle diastolique mhm. tension bi nga xam ne dafa inférieure aussi à neuf moom mooy lan nit ki mën naa am huit mën naa am sept jàpp ba six donc dañuy wax ni kooku tamit tension artérielle diastolique tamit normal la mhm. d' accord mu mel ni foofu daanaka euh, leer na ci auditeurs yi ñuy déglu tey yaa ko doon wax euh, hypertension artérielle bu ma la suivre bu baax euh, docteur Babacar Diop mu mel ni eh, bokk na ci feebar yi nga xamante ne mun nañ ko doon ci suñuy jur moo xam suñu maam suñu sœur suñu yaay am déet waa tey jii nii nii boo xoolee lépp lu jëm ci feebar yi nga xam ne dafay wàllante wa ilaa mu nekk feebar yi nga xam ne duñ ko wàllante tension tey gii nii nii sa maam wala sa papa wala sa yaay bu amee tension wala mu am diabète même si waxtaanuñ ci sujet boobu mm-hmm. tey jii nit kooku noonu noonu noonu am na possibilité moom tamit mu am li nga xam ne moom mooy tension su màggee mm-hmm. moo tax li ñuy wax toujours nit ki bu ñu ko recevoir dañuy seet li nga xam ne moom mooy antécédent mi dañuy xool ba xam est-ce que waajuram bu góor wala waajuram bu jigéen est-ce que amee woon na tension wala déet. Mhm. ndaxte am na possibilité mu nekk feebar boo xam ne da koy jëlee ci sa papa wala nga jëlee ko li nga xam ne tey jii moom mooy sa yaay. Mhm. mais am na ñenn ñoo xam ne seeni waajur tamit mën nañoo bañ a amee tension mën nañoo amee bañ bañ amee benn jàngoro lu jëm ci wàllu tension. Mhm. waaye ñoom tamit ñu juddu. wax dëgg yàlla ak lekk gi nga xam ne moom la ñuy lekk ak jamono ni mu mel ñu dem ba ci jëmmi jamono ñu daal di am li nga xam ne moom mooy tension mhm. donc sa waay jur mën nga koo jëlee li nga xam ne mooy sa waay jur comme mën nga koo bañ a jëlee li nga xam ne moom mooy sa waajur mhm. loolu tamit il faut que nit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mhm. parfois nga laajte nit mu ne la sama papa musul amee amee tension ko waral mhm. loolu noonu bu bu ngeen xoolee dañuy settantal ñu xam ne moom mooy loolu moo waral li nga xam ne moom mooy tension bi euh, kon euh, loolu day firnde nekk euh, jàngoro bi di hypertension artérielle muy tension buy yéeg wala buy wàcc Euh, bokk na ci li ñuy duppee maladie silencieuse parce que ñu bari comme nu nu ñu ko waxee léegi nii dañ koy daal di umpale xamuñu ndax ci seen wayjur yi leen ko doon. xam nga tey jii nii nii li nga laajte déjà dafa am solo. Mhm. ndaxte ñun bu ñu xoolee yenn maladie yu bari yi nga xam ne ñu ngi leen di recevoir hôpital. dañuy ñëw daanaka ñoom xamuñu woon sax ba xam amee nañu tension wala amee wuñu tension. Hmm. parfois duñ leen recevoir ñu dañuy ñëw ci yenn état yoo xam ne dañuy ñëw ci état bu soit complication wa ilaa ñu ñëw doon def ay analyse ay yenn kii yoo xam ne tension sax bokk ci woon xëy na. Hmm. ñu ñëwee maanaam de façon loolu la ñuy tubaab di wax de façon fortuite ñoo xam ne bàyyiwuñ ci woon xel ñu ñëw bu ñu xoolee ñu ne ah yaay booy yow de sa tension dafa yéeg. wala papa sa tension dafa yéeg waaye loolu dong noonu maanaam ci benn fan kenn du ci sukkandiku ne nit ki dafa amee tension dëgg la ndaxte loolu tamit il faut que nit ñi bàyyi ci xel mhm. mën ngaa ñëw tey bi bisub tey xëy na dox bi nga dox dafa sori sonn bi nga sonn soo ñëwee nga amee tension wa ilaa tey jii nit ki dafa stressé su ñëwee mu amee tension wa ilaa nga ñëw hôpital te xam nañ hôpital la fay xew nit ki mën naa tiit ak leneen ak leneen lu koy nduru mu mhm. amee benn tension bu xaw a yéeg waaye du loolu dong duñ ci sukkandiku pour ne nit ki da nga amee tension mhm. donc loolu tam il faut que nit ñi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mhm. d'accord loolu la ci comme niñ koy farataal di comme niñ ko waxee léegi nii rek benn Fatou Baba mun na génn toute une journée mu ñëw amee métti bopp boo xamante ne koy daal di tëral automatiquement euh, bu jëlee garab seddul euh, c'est à l'image des Sénégalais lambda ko naan demal seeti sa sa tension kon tey docteur boo ñu doon wax euh, ci yi nga xamante ne moom mooy attirer attention ci nit ki ba mu njortu ne moom am na hypertension artérielle yan signe lañu ñu mën a jàpp docteur. jërëjëf euh, soxna Fatou ci laajte bi nga xam ne tamit gën a dina am solo. Hmm. déjà il faut que ñun li nga xam ne ñu def li nga xam ne mooy très attention. Hmm. dafa amoon yenn signes yoo xam ne dañ ko daan askanale tention fu mu mënti toll. Hmm. signes yooyu bokk na ci li nga xam ne mooy bopp buy metti signes yooyu bokk na ci li nga xam ne mooy bët yuy lëndëm mm-hmm. signes yooyu bokk na ci li nga xam ne mooy nopp yuy riir mm-hmm. signes yooyu noonu bokk na ci tamit nit ki jékki-jékki ñu def li nga xam ne moom mooy AVC ak leneen ak leneen mm-hmm. waaye li nit ñi war a mën a xam moom mooy signes yooyu noonu yëpp parfois nit mën na koo am te amewul tension d'accord nit ki mën naa amee tension maanaam signes yooyu ànd ci ki mën naa amee tension te tamit signes benn du ci ànd moo tax même mën ngaa toog sa kër dala maanaam dara mettiwu la teewul yow sa tension bu ñu xoolee dañuy gis ni tension bi dafa yéeg uh-huh. waaye nag comme li ñuy wax rek yaram dafa am tension boo xam ne xëy na tant nit ki mi ngi koy supporter du mën na ko bañ a exprimer wu uh-huh. comme tey jii nit ki tey mën naa xiif ni may xiifee di ko supporter ak soxna Ndeye Fatou ni muy xiifee di ko supporter xam nga bokkuñu. bokkuñu c'est la même chose tamit moo tax nit ki mën naa amee tension bu yéeg boo ko laajtee wala nga ñëw hôpital ñu xool ñu ne ah papa yow sa tension bi dafa yéeg de mu ne man day wax dëgg yàlla dara méttiwu ma y maanaam sama yaram yëguma ci dara dara dara dara mhm. mais c'est pas parce que nit ki yëgul dara ci yaramam que tension boobu tamit dañ koy bàyyi mu nekk di farërëri di dem mhm. même bu dee nit ki yëgul mhm. lépp liñ ko war a dee confirmé que dafa amee tension mm-hmm. li ñu war moom mooy lan ñu defaral ko li nga xam ne moom mooy traitement bi war mm-hmm. kon encore une fois dañuy dañuy dañuy dañuy résumé rek nit ki signes yooyu noonu ma leen wax mooy bët yuy lëndëm nopp yuy riir bopp buy metti ak li nga xam ne nga jékki-jékki benn ci sa cër yi daal di bañ ak yooyu noonu yooyu noonu yëpp nit ki mën naa am tension am ko comme mën naa am tension bañ koo am mm-hmm. ok kon mu mel ni docteur euh, Babacar Diop bu ma la déggee euh, jàngoro bi di hypertension artérielle diagnostique ko euh, taxu ko yomb loolu ci ci ni ma comprendre xam nga yomb na yombul mhm. yomb na ci ki nga xam ne tey ji suñu borom def na ne mu yor li nga xam ne mooy appareil buy tax ñu mën di saytu tension fu mu mën ci tool. muy tensiomètre. muy tensiomètre. Mhm. ndaxte mën ngaa ñëw hôpital xëy na sa tension yéeg nga dellu sa kër sa tension normale. Mhm. kon bu ñu bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom mooy chiffre yi nga am à l'hôpital pour ñi nga xam ne dañ lay dañ lay mettre sous traitement instant yooyu dañuy juum. Mm-hmm. moo tax boo ñëwee daanaka dañ lay wax nga delluwaat soo delluwaatee bien sûr dafa am tension boo xam ne tey jii nit ki du ñëw hôpital di am ay tension vingt wala ay vingt cinq nga naan daan delluwaatal sa kër loolu moom bokku ci. Mm-hmm. dafa am yenn tension yoo xam ne boo ko ñëwee bu ñu la stabiliser ba pare xëy na dañuy rechercher lan moo waral lii xew. xëy na mën ngaa ñàkk benn waay jur wala nga am ay jafe-jafe yoo nekk wala ilaa wa ilaa wa ilaa am na yu bëri yoo xam ne gannaaw boo ko éliminer ba pare bu dee dañoo continuer après fukki fan ak ak ak ak ak yi nga xam ne moom mooy juróom ñu gis ni nit ki tension bu ko jëlee këram kërëm nga xam ne amul dara lu ko entouré lu koy stressé ñu gis ni tension am toujours day continuer di yéeg mm-hmm. kooku en ce moment là bu ñëwee nag ci lañ koy doogay mettre su traitement mm-hmm. maintenant nag ki nga xam ne dañ ko recevoir ci yenn forme tension yi ak ay complications kooku noonu noonu diagnostic xam nga xam nga nit ki imaginer mu ñëw hôpital def li nga xam ne mooy complication def AVC. Mhm. kooku noonu diagnostiqué tension am ci jamono jooju noonu daanaka am na njëriñ amul njëriñ. Mhm. ndaxte amul benn défi boo xam ne dañ koy kii soit li ñuy def rek moom mooy lan bañ mu defaat beneen épisode de complication moom mooy ñu teel a réglé waat tension bi pour lii war a xew xew na ba pare. Mhm. moo tax diagnostiqué ko. soo ci teelee jug yomb na moom mooy lan tentomètre jarul vingt cinq mille jarul maanaam li muy jar bariwul mhm. nit ki am ko sa kër kër gu nekk ci li nga xam ne mooy Sénégal wala Afrique wala monde entier kër gu nekk goo xam ne ay nit dañ fay dajaloo mhm. war naa am au moins benn tensiomètre pour que nit ñi surtout mag ñi ñuy surveiller li nga xam ne moom mooy seen i tension wala li loolu moom mooy permettre bu ñu gisee yenn chiffres yu xaw a élevé wu ñu daw gaaw dem ci docteur bu ñu demee ci docteur nag wax dëgg yàlla ñu mën leen a jàppale pour que ñu bañ a egg ci li nga xam ne moom mooy complication mhm. euh, justement euh, euh, na a am ci kër gu nekk mais le constat xëy na loolu moo war a nekk la règle docteur Babacar Diop loolu moo war a nekk la règle maison bu nekk wala kër bu nekk dafa war a am lii di tensiomètre pour koo xamante ne boo génnee ñëw nga sentir que ne sa yaram diis nag yooyu boo dalloo dix à quinze minutes nga mën a jël sa tension pour mu mun la édifier par rapport ak sa situation loolu peut-être moom mooy la règle mais mu mel ni ci suñu société bi euh, du ma ne bëriwul mais certainement néew na kër booy dugg nga fekk fa tensiomètre loolu lan moo ci pexe wala à chaque fois dañu war a dem kër docteur ngir mën a saytu euh, lépp jëm ci suñu wàllum tension par rapport ak tensiomètre bi war a nekk ci kër yi bien sûr xam nga soxna Fatou wax dëgg yàlla Euh, li nga xam ne dañ koy jànkonteel uh-huh. nit ki koo xam ne yorul mille franc wala yorul deux mille franc bu mu jëndee ceeb wala bu mu jëndee wax dëgg yàlla lu mu dundalee njabootam hmm. kooku boo ko bëggee wax ne que da ngay génnee vingt cinq mille wala trente mille pour dem jënd ci tensiomètre wax dëgg yàlla defe naa ni priorité yi bokkuñu. tout à fait. bokk na ci li nga xam ne wax dëgg yàlla ndóol bu métti gi naa nekk motif boo xam ne pour que ñu bañ a réaliser loolu. Uh-huh. waaye lu ci xew. li ñuy wax rek xoddeeku balaa ngaa lakkale mhm. nit ñi parfois dañuy jàpp ni loolu dafa cher dafa cher dafa cher waaye on se jamono ji ñuy ñëwee hôpital jamono jooju doy na waar doy waar goo xam ne nit ki li muy dépensé moo ëpp sax vingt cinq mille wala trente mille yooyu noonu nga xam ne amoon na ko initialement mhm. kon on se bu ñu defee le pour et li muy cher cher cher wax dëgg yàlla am na njariñ pour que nit ñu lijjanti ko bu dee maanaam sax dañ koy def benn sacrifice la rek ñu def ko matale ko mu daal di jeex benn yoon moom moo gën ah. il faut que nit ñi xam loolu noon noonu maintenant xool nan la ñuy def nag ba li nga xam ne tey jii nii moom mooy tensiomètre yooyu ñu même bu dee dañ ko war a ne wa ilaa dañoo war a am nu ñuy def ba organiser wu pour que loolu mën a mate defe naa ni loolu lu am njariñ la te kenn ku ci nekk ci bërëb bi nga ne muy médecin bi muy politicien yi wala ñëpp ñu mënti doon surtout la responsabilité individuelle uh-huh. mooy famille bu nekk am nga kenn koo xam ne wax dëgg yàlla moom mooy saytu li nga xam ne moom mooy njaboot gi kooku war naa def de telle sorte que mooy tey soo demee sama kër man sama papa wala sama yaay man damaa war a def de telle sorte que ma dem jaayante ba am li nga xam ne mooy njëgu tensiomètre ma jëndal ko sama yaay wala sama papa ma teg ko ci kër gi kat ne ko yaay lii ak lii de ñii leen koy bi ñii koy jëfandikoo jëfandiko bi yomb na lool mhm. soxlawul ngay jàng jàng yu sori wala nangam ak sànq mhm. ñu la ko wanee benn yoon ñaari yoon mën nga koo jëfandikoo mhm. maintenant ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla suñu borom def na ni yorul ay koppar yi mën a jëlee li nga xam ne moom mooy jëndee appareil tensiomètre leneen solution moom mooy lan am na ay pharmacie yi nga xam ne ñu ngi ci bopp koñ mm-hmm. maintenant li ñuy def moom mooy lan ah bu ñu toogee ba ay jamono rek ñu gis nii suñu yaram xaw naa nangam am nañu lu ñuy metti dëru bu dee amuñu sax lu ñuy metti ñu doxantu nànk dem ba ci pharmacie bi naka ah man damaa ñëwoon xool saytu ci sama tension mm-hmm. en ce moment là bu ko saytoo ba gis ni tension bi dafa yéeg jamono yooyu dina la ah waa yaay booy jamono jii da ngaa a dem wala papa da ngaa war a dem gis li nga xam ne moom mooy kër docteur pour ñu xoolal la li nga xam ne moom mooy sa tension mm-hmm. d'accord mu mel ni aussi foofu wax nga ko euh, ça implique une responsabilité individuelle aussi bien euh, ci côté corps médical bi ki le côté euh, le sénégalais lambda ba fi may accentuer wu rek mooy kon war nañu gën a ñaax askan war nañ leen gën a sensibiliser ci naka la ñuy en compte seen tension artérielle waaye tamit ñaax leen ci jumtuwaay bi nga wax yenn saa yi bi ñuy dem kër docteur day fekk ne lu ñu nar a débourser c'est cinquante fois mille plus alors que peut-être bu ñu amoon le petit appareil yi à côté de euh, dina leen euh, fàggal lu lu bari bari tey war nañu mettre l'accent aussi kon bu ma la déggee bu baax docteur Babacar Diop mettre l'accent sur la sensibilisation ak beaucoup plus de communication euh, par rapport ak li nga fi jot a wax yépp. sikk sikk amu ci wax dëgg yàlla defe naa ni koppar yi nga xam ne dañ koy dépenser ngir faj li nga xam ne mooy feebar mm. ñu def de telle sorte que feebar boobu noonu ba a ñëw defe naa ne moom moo gën bu ñu jëlee rek ci tegtal tey jii bu ñu doon jël chiffre du terre à terre pour que nit ñi mën a xam impact bi tey jii nit ki mënoon naa dépenser juste benn mille francs wala benn supposons benn vingt cinq mille vingt cinq mille boobu boo xam ne moom moo koy wàcceel yenn jafe-jafe yu bari yoo xam ne bu doon day faju parce que li nga xam ne mooy tension prise en charge bi c'est une prise en charge assez lourde uh-huh. maanaam dafa cher lool lool lool ndaxte garabu tension yi dong dong dong rek boo xoolee lu muy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw quatre mille cinq mille douze mille ça dépend ci tension bi fu mu toll uh-huh. kon xam nga ni loolu noonu maanaam doy na waar te cher na lool lool lool uh-huh. alors que tey jii nit ki defoon benn investissement moom mooy lan jënd benn appareil tensiomètre buy jar vingt cinq mille wala trente mille yor ko këram dépisté wu de telle que loolu noonu mooy jafe-jafe yi mu bañ koo dal ah. suñu defee le pour et le contre on se rend compte que ici on peut dépenser ci sur le long terme des millions alors que là sur le court terme mën nañoo dépenser juste des centaines de mille mhm. maintenant nag wax dëgg yàlla euh, euh, implication daf cee war a am ci li nga xam ne moom mooy niveau yëpp mhm. parce que tamit nit ki docteur bu ko gisulee mënu koo xamal ba xam amee na tension wala ameewul tension. Mm-hmm. parce que majeure partie bi comme bu ma la ko mën a waxee maanaam boo jëloon ñi ñuy dépister tension ak ñi ñuy dépister wul tension. Mm-hmm. bu doon ni maanaam fukk lañ jàppal ni benn dong ci fukk yi benn dong lañ dépister ñi ñoo amee tension. bu doon fukki nit ñoo amee tension benn dong lañ ci dépister ñi ñoo ñoo amee tension. Mm-hmm. xam nga ni loolu doy na waa doy na waar. ñeent yi ci des nag yeneen neuf yi nga xam ne moom mooy euh, juróom-ñeent yi ci des yëpp d'habitude dañ leen di recevoir li nga xam ne moom mooy. état bu complication mhm. te en ce moment tamit prise en charge bi day gën a lourd daal encore on va dépenser encore des millions supplémentaires pour li nga xam ne moom mooy nit ki ñëw ci étape boobu noonu. Euh, xanaa loolu rek ñu jëm ci li nga xamante ne moom moo di wàllum traitement bi docteur Babacar Diop wax nga ko traitement wu bu soxal hypertension artérielle nekk na traitement bu lourd boo ko waxee xam naa mooy wàllum koom-koom ak nit ki garab yi muy jël mais tey boo ñu doon waxal euh, traitement bu soxal hypertension artérielle euh, naka nga ñu koy expliquer d'autant plus que dafa am ñaari forme euh, yaa ngi ko sànq bu ma juumul mooy histolystique bi ak euh, naka histoliste seen terme ak diastolique histolique systolique ak diastolique. systolique ak diastolique donc je suppose que euh, traitement yi yemul tey boo ñu ko doon defal euh, par euh, benn benn ñëw ci histolique bi traitement bi comment ça se passe durée bi à déterminer la wala durée bi à vie la laata ñuy dem ci beneen forme bu gën a compliqué bi bien sûr ngir ñu ñuy dégg suñ ci mën a am déjà soxna soxna soxna xam naa damay damay defaat beneen leeral bu ndaw rek allez-y lu jëm ci ci wàllu tension buñ la ko dee jox ñaari nombre lañ lay jox mhm. ñaari nombre yooyu noonu moom laa jéemoon a expliquer li nga xam ne moom mooy heure bu xol bi dee noppalu ak heure bu xol bi dee nekkee en mouvement actif voilà maintenant nag moom mooy systolique mooy xol bee ngi liggéey diastolique moom mooy xol bee ngi noppalu d'accord maintenant ñaari yooyu noonu noonu noonu noonu moom la ñuy combiner pour wax ni nit ki dafa amee tension surtout maanaam nit ki am mën naa amee ci benn ci ñaar yooyu noonu ñu ne da nga tension. Mhm. dañuy dañuy dañuy préciser cette fois-ci ne tension artérielle tu as une hypertension artérielle systolique. Mhm. wa ilaa ñu ne kii dafa amee tension li nga xam ne moom mooy diastolique mais ñaar yooyu noonu yëpp suivant li nga xam ne mooy nombre yi ne di jox dafa am li nga xam ne moom mooy grade. grade ñu ne kii nii grade un la nekk kii grade deux kii grade trois kii grade quatre. d'accord. mais maintenant du du comme bu dee bu dee kii dafa amee tension artérielle systolique bi dafa am garab buñ ko war a jox bu dee kii dafa am tension artérielle diastolique dafa am benn garab buñ ko war a jox garab bi nga xam ne mooy wàccee tension dafay agir aussi bien ci li nga xam ne moom mooy systolique bi ak li nga xam ne moom mooy diastolique bi ndaxte ci ci ci roño yi li muy agir roño yooyu noonu après moom mooy am benn retentissement li nga xam ne moom mooy en amont et en aval. pour mm. que mu mën a wàccee après tension bi nga xam ne tey jii moom la nit ci am. Mm-hmm. kon bu ñu xoolee traitement yi ñuy joxe suivant que nit ki am tension artérielle diastolique wala suivant que nit ki am tension diastolique tension artérielle systolique daanaka ñoom ñaar ñoom ñoo yem. Mm-hmm. donc nit ñi ñu bàyyi ci xel buñ ne kii dafa amee tension artérielle. systolique garab bi lañ koy bindal bu dee diastolique garab bële lañ koy bindal mhm. daanaka ñoom ñaar maanaam garab yi ñuy jël aussi bien c'est systolique aussi bien c'est diastolique daanaka ñoom ñoo xaw a yem loolu noonu il faut que nit ñi déjà ñu comprendre que ba pare mhm. maintenant bu weesoo loolu buñ dee jël ay garabu tension comme ni nga waxee c'est suivant li nga xam ne moom mooy grade bi nit ki amee tension bi mhm. grade grade dafa am grade un am grade am grade trois hmm. dafa am tension boo xam ne juste dafa dafa dafa naatam la li nga xam ne moom mooy quatorze hmm. wa ilaa mu supérieur ou égal à quatorze wa ilaa mu supérieur ou égal à neuf hmm. suivant ñaari nombre yi ma joxe woon kooku noonu noon noonu mën nañ koo joxe li nga xam ne moom mooy garabu tension boo xam ne soit benn garab rek moo ci nekk maintenant nga dem ci ki nga xam ne tey jii dafa ame de chiffres tensionnels yi nga xam ne dañoo supérieur ou égal à quinze ah. wa ilaa kene mu am supérieur strictement à neuf uh-huh. kooku tamit dafa dem jamono yoo xam ne mën nañoo associer benn garabu tension ak beneen jox ko ko lu ñuy gën di avancer lu ñuy gën di avancer mën ngaa gis ni nit ki mën naa ci garabu tension bi muy jël donte bu dee benn comprimé la waaye benn comprimé boobu noonu noonu mën naa am benn garabu tension wala ñaari garabu tension wala ñetti garabu tension wala ñeent sax garabu tension ci biir benn comprimé boobu loolu la ñuy wax ce qu'on appelle des associations maintenant loolu noonu nag ça dépendra li nga xam ne moom mooy tension bi nga xam ne nit ki am na ko ci jamono jooju muy ñëwee à l'hôpital ak ba xam am na ay complications yeneen yoo xam ne dina jar parfois ñu am yeneen garab yoo xam ne pour faj complication yooyu noonu noonu moom mooy waral yoo xam ne bokkul ak lenn ak li nga xam ne moom mooy garabu tension bi. Euh, mu mel ni mbokk auditeurs yi foofu traitement bi nga xamante ne moom moo soxal euh, ñi am jàngoro bi hypertension artérielle leer na euh, tey docteur traitement bi quel que soit alpha dafa nekk traitement à vie wala tension artérielle hypertension artérielle dañ koy faj ba mu wër. Euh, déjà balaa balaa déjà ñu ñuy répondre ci question bi may leen ma tuuti ma am dara lu ma ci yokkat allez-y maanaam xam nga sénégalais dafa yaakaar ni jox nit ki ay comprimer rek loolu dong moom moo nekk li nga xam ne moom mooy traitement mhm. traitement bokk na ci am na nit koo xam ne bu dee dafa amee tension tamit am na benn régime boo xam dañ ko koy dañ ko koy wax mu koy suivre. super la régime alimentaire bi. voilà régime boobu noonu daanaka boo xoolee tamit moom moo gën a important sax li nga xam ne moom mooy garab yi muy naan. Mhm. parce que tamit nit ki bu dee maanaam lekk gi muy lekk moom moo ko indil jafe-jafe tension loo ko jox garab garab garab garab te réglé woo problème mu lekk bi tension mais tension boobu noonu mu amee. du dee daanaka heure bu bu jëlaatee tension bu jëlaatee garab jëlaatee lekk boobu mu lekkoon tension bi day yéegaat mhm. dèjà loolu laa bëggoon a leeral ci li nga xam ne mooy ci traitement bi tamit un régime alimentaire am na ci mhm. donc bu leen jaaxle bu ngeen ñëwee hôpital en plus que ñu leen di jox am na ñenn ñoo xam ne sax bu ñu leen jox sax ay comprimés mhm. dañuy ñëw juste benn régime lañ leen di wax ñu def ko à partir de régime boobu noonu kese kese kese ça suffit pour que tension mën bu ñu demee ba gis ni régime bi nag weesu na ci jamono jooju noonu nag la ñuy doogay nag boole li nga xam ne mooy régime bi plus ay garab pour que nit ki mën ko naan mhm. pour que jafe-jafe mi mën a wàññee mhm. maintenant pour dellu si li nga xam ne moom mooy sa sa question bi traitement à vie wala dafa am fu muy voilà voilà tension tension nag dafa nekk feebar boo xam ne maanaam nit ki mën na koo amee ci giirub dundam yëpp mm. loolu la ñuy wax ça ça fait partie de ce na appelle des maladies chronique des maladies chroniques nag nit ñi dafa am benn préjugé boo xam ne dañ koy wax toujours mm-hmm. muy mooy da ngay da ngay da ngay ngay ñëw si koñ bi ñu ne la yii garab gi bu ko tàmbali soo ko tàmbalee da nga koy jël ci sa giirub dund yëpp mm-hmm. loolu noonu noonu nag bañ bañ na sax suñu chaîne YouTube sax def nañ ci ay ay ay yoo xam ne pour waxtaan ak nit ñi sensibilisation ñu xam ne lii ak lii ak lii c'est à éviter mm-hmm. loo xam ne comme li ñuy joxe exemple tension bu dee ci nit buñ la joxee garab bi tension garab bu tension boobu noonu noonu tant que yaa ngi koy naan yàgg ki nga xam ne amewul tension yéen a yem. d'accord. donc loolu dong dong dong war naa tax kon nit ki jël ko. ki mm-hmm. nga xam ne bu amewul tension. ni muy mën a dundee à l'aise yow mi nga xam ne da ngaa amee tension ba ñu mettre la sous traitement ba traitement bi nekk traitement bu adéquat ba lépp ok ba chiffres yi yëpp ñu maîtriser ko mm-hmm. yaa ki nga xam ne amoo leen tension yéene yem mm-hmm. waaye sa suppose que sa garab yi nga war a jël da nga ko war a di jël chaque jour mm-hmm. donc amul ni jël naa ko ñu dem ba benn weer wala ñaari weer ñu gis ni tension bi normal na ñu ne ah comme sama tension normal na jamono ji bàyyi ma bàyyi bàyyi ma bàyyi jël garabu bi daal di delluwaat ci li ma neexoon Mm-hmm. soo ci delluwaatee tension bi tamit day yéegaat parce que yow garab bi ngay jël moom moo tax tension bi réglé mm-hmm. donc loolu tamit nit ñi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax garab booy jël il faut que nit ñi xam ko boo ko tàmbalee mm-hmm. nga jékki-jékki nga bàyyi ko di def comme ça tey ma jël ko gannaaw suba ma bañ koo jël gannaaw waati suba loolu day indi ni tension bi maanaam c'est comme oto nga koy taal di fay. di la faj. xam nga oto oto boo ko dee taal di fay taal di fay di taal di fay fi nga taxaw sur place nga dem ba jëmmi jamono batterie bi day wàcc. tout à fait. waaw batterie bu bu wàccee nag wax dëgg yàlla jafe-jafe gi ngay am mooy di nga woo électricien wala dinañ la buux wala leneen ak leneen. te loolu noonu ay jafe-jafe la donc kuy tàmbali di jël garabu tension ñu ngi leen di ñaax ngeen respecté li nga xam ne moom mooy prise yi bu ko defee nag wax dëgg yàlla li ñu ci war ñu mën koo def li nga xam ne moom mooy correctement mhm. euh, mu mel ni foofu leer na docteur euh, dañuy xuus rek jëm ci li nga xamante ne moom mooy euh, régime alimentaire bi nga xamante ne moom la de manière générale sax doomu aadama bi doomu aadama bi moom la war a jël particulièrement ñi nga xamante ne dañu am jàngoro bii di hypertension mu mel nag bëri na ñoo xamante ne dañuy xaw a def corrélation xaw ma ndax scientifiquement c'est un peu prouvé ou bien di ñu ci mën a indil ay leeral euh, yenn yenn yi ñuy farataal di di di di consommer yenn saa yi ñuy wax euh, les sénégalais dañu xaw a am ay habitudes alimentaires wala hygiène alimentaire yu xaw a bizarre maanaam manger tout ce qui est gras euh, tout ce qui est épicé ak yenn bouillon yi yenn saa yi dañuy xaw a def corrélation bi yooyu façon alimentation ak yenn jàngoro yi ndax c'est le cas euh, euh, ndax de cause à effet la ñu wax yenn consommation yi dañu am euh, probabilité am yenn jàngo yi nga indil ñu ci ay leeral. jërëjëf soxna Fatou ci li nga xam ne mooy laajte bi ndaxte lu jëm ci wàllub régime damay wax ni daanaka émission bi li muy am solo solo yëpp maanaam question bi moo ci gën a am solo. Mhm. ndaxte tubaab day wax ni ñun maanaam nit ki boo bëggee xool ba xam lan la doon da xool li muy lekk. <laughs> nit ki li muy lekk rek moom mooy résumé moom li mu doon kon nit ki maanaam bu dee lekk lekk goo xam ne dafa déséquilibré wu jàppal ni nit kooku tamit kuy bari lu muy feebar lay doon mhm. te bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy Sénégal dafa am ñett yoo xam ne wax dëgg yàlla feebar bu mu mënti doon rawatina li nga xam ne moom mooy tension bu nit ki saxee di ko def du tàqali ko ak moom bu njëkk bi moom mooy nit ki nga xam ne dafay lekk loo xam ne dafa bëri xorom mhm. te ñun boo xoolee bu ñu xëyee yeewu ba keroog ñuy tëddaat ci kaw lal <laughs> daanaka xorom rek la ñuy lekk xorom rek lañuy ñuy lekk de <laughs> xorom maanaam bu ñu xëyee yeewu mhm. imaginer cube magie bi dong dong dong li ci nekk ci xorom mhm. maanaam journée bi yëpp loolu dong la ñu waroon a lekk maanaam te sax da koy ëpp bouillon yi maanaam benn bouillon bi ngay jël rek li mu li ci ne ci xorom hmm. maanaam journée bi yëpp yow maanaam boo xëyoon di lekk xorom ci ñàkkoon a bañ a lekk xorom nga jël benn kii maji boobu noonu kese daanaka nit ki nekk ci xorom foofu noonu noonu résumé na journée bi li lañ ciy def hmm. da ngay xëy def ci añ def ci hmm. loolu noonu noonu noonu ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy alimentation bi nga xam ne dafa niin mooy cholestérol bi moom mooy li nga xam ne mooy graisse bi li nga xam ne mooy diwlin bi diwlin bu bëri bi diwlin bu bëri bi maanaam ñun sénégalais ñun tànk maanaam ceebu jën bi bësoo maanaam tibboo ceeb bi nga bank sa baaraam ba gis diwlin bi di tuuru da nga naan ah moom de jéeg suñu jéeg yi ñu bàyyi suñu kër gi de wax dëgg yàlla togg gi ñu togg neexul mhm. te mhm. loolu tamit mu nekkaat beneen jafe-jafe mhm. bu weesoo loolu tamit moom mooy li nga xam ne moom mooy trop trop sucré. ñun tamit dañuy lekk maanaam suukar comme pas possible. Uh-huh. te ñett yooyu noonu daanaka koo xam ne daf koo daf koo dëkkee di ko doxale daanaka yow ak feebar yéenay dëkk. te bu weesoo loolu du ñu yëngatu. Uh-huh. maanaam toog benn place bi boo jëlee li nga wax lépp ab boole ci toog benn place bi aussi. maanaam da ngay boole ñett yooyu ba pare nga boole ci toog benn place. Uh-huh. déjà que boo boolee ñett yi di yëngatu sax y a un problème. Mhm. mais imagine nga boolee ñett yi ba pare léegi boole ko toog toog benn place. cas bi day gën a garaam cas bi nag moom li ko li gars yi di wax naan cas bi day gën a critique. cas bi dafay critique. cas bi day critique malheureusement. Mm-hmm. malheureusement nag loolu noonu noonu boo xoolee après retentissement yi am yëpp dafay déparé ci li nga xam ne moom mooy ñeent yooyu noonu moom mooy lekk lu am xorom lu ëpp mm-hmm. lekk lu am duwlin ju bëri ba ëpp lekk lu am suukar ba ëpp boole toog li nga xam ne moom mooy toog mm-hmm. moo tax ñeent yooyu noonu ko réglé rek daanaka dañuy xoole nit ki tension am dafay dafay dafay dafay li nga ne moom mooy day réglé waat docteur docteur ma ma ma ma dolli la si ñun nu ñuy farataal di toggee yenn saa yi sax dinañ wax ne eh, toggu maam yi ak eh, toggu génération bi ba euh, bokkul pour rek euh, gën a yokk ci li ngay wax balaa ñoo mën a kontaan donte diwlin bi day niin sax ba siit waaye balaa moo mën a kontaan ñu daal di ruus ba nga xamante ne kër bi day daal di saxaar boole ceek yooyu yëpp ngay wax mu mel ni aussi euh, suñu façon togg ci boppam sax ça pose un souci autant pour moi wallaay wallaay ni ko waxee sax xamoo ko sax xam nga xam bi ñuy utiliser comme tey jii bu ñu jëleen exemple duulinu gerte duulinu gerte bi maanaam na mu mel noonu noonu noonu noonu kese amul benn jafe-jafe. bu doon duulinu gerte bi ni mu mel noonu maanaam dañuy jël supposons wis ko ci dara kii ko maanaam jamono jooju noonu noonu noonu duulin boobu noonu dafa am l' ensemble des qualités. pour ah. nit bi nga xam ne moom la war a dundee moom mooy par rapport ak bon cholestérol bi. maintenant duulin boobu noonu dee yor ko nga teg ko ci kaw taal. taal taal boo taalee rek tu commences à créer des problèmes. Mhm. maanaam yenn jafe-jafe yu bëri yëpp dès lor ko gaz bi tàkk rek oh bienvenue les problèmes bañ na ko boo ko ji ba boo ko ci sànnee mun a fëf yow yaakaar nga ne yow yaa rey gaynde mm-hmm. boole kooku li ngay def noonu noonu maanaam yow lépp luy aspect luy vitamine li ci amoon boo ko sànnee ba mu ne tëf rek vitamine yëpp parce que vitamine yi nekk ci lekk yi ñuy lekk vitamine yooyu ñemewuñu tàngoor mm-hmm. te bàyyi diwlin ba mu sens bay saxaar nga dugal ko ci loolu noonu day rey daanaka ñun li ñuy lekk boo xoolee daanaka lépp amul benn njariñ maanaam dañuy remplir suñu biir bi rek. on mange pour manger. on mange juste pour manger mais on mange pas pour avoir les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement. Mm-hmm. malheureusement nag wax dëgg yàlla ñu ngi ciy waxtaan nag ci jamono ju ñu mënti ne. ñuy mm-hmm. sensibiliser la population. waaye li ñuy wax rek nit ki moom. dafa am nooy dundee noo xam ne yow da ngay dem ba jëmbi jamono nga yaakaar ni même boo defulee noonu yow doo mën a doo mën a survivre alors ñoo xam ne ba tey jii nii nii nii parfois nga rencontré ne ñi nga am ay cent ans et quelques ñi ngi dox seeni soxla waaye jamono jii nii nii koo ci gis bu amee cinquante ans wala quarante ans parce que mooy feeñ foofu nekk gi rek Mhm. d' accord euh, euh, foofu sax euh, ku dëkk mag boo boo seetloo boo leen yekkalee boo leen yekkalee boo leen yekkee wala nga yekk añ añ muy añ muy reer de manière générale dañ dañuy xool ceeb bi rek bu dee ceeb surtout dañuy xool ceeb bi rek ne la sa soble bi dafa xam ganu ganu moo tax boo seetloo bu ñu demee ba am yenn âge yi dañuy préféré defal leen seen benn régime parce que ñoom du ñu mën a comprendre sax mais bi le fait que ñu leen koy présenter rek à plus forte raison que ñoom ñu koy lekk ah dëgg la xam nga li ñuy wax rek euh, kenn ku ci nekk ak li a tàmm. effectivement ñoom seenu tàmm li ñu daan lekk ak jamono ji ni ñuy lekkee. Mm. moom moo tax mag yu bari lekkatuñu mm-hmm. bu ngeen dee bu ngeen xoolee bu ngeen duggee ci kër am na mag yoo xam dañ leen di tegal lekk boo leen tegalee lekk ñu ne lekk ñu c'est pas que xiifuñu de effectivement maanaam lekk gi ñuy lekk ñun ak ñoom lekk di ñu xam bokkut bokkut moo tax nag maanaam mag yooyu noonu noonu di leen bàyyi xel bu ñu bu ñu toogee bañ lekk nga yaakaar ne non dañoo xiiful déedéet toggin mm-hmm. wi ñu togginee ak matale gi ko matale moom moo leen convenirul moom moo tax toujours ñu war a bàyyi xel maintenant s'il le faut bu dee da nga war a dem gis wala nga dem gis benn koo xam ne wax dëgg yàlla xam-xamam màcc na ci loolu ah. nga waxtaan ci ak moom comme ça mu jox la ay tegtal loolu dina la nga réajuster li nga xam ne moom mooy tiir bi un tout petit peu mhm. ndaxte mag ñi kat wax dëgg yàlla ngi gis ni de jour en jour ñu ngi wàññeeku wàññeeku bu doy waar mhm. li koy waral juste rek moom mooy lan suñu génération bi dañoo dem ba dañ leen a fàtte mhm. ci lépp lu ñuy jël nag dañ leen di fàtte ci lekk gi dañ Mm-hmm. donc bu ñu ma lekkee lu baax Ah. wax dëgg yàlla dund dund ah. safaan tamit wax dëgg yàlla dund dund safaan ah. Euh, justement par euh, rapport à li nga fi wax yëpp par rapport ak régime alimentaire bi ak bouillon yu ñuy farataal di utiliser ak ñi nga xamante ne amuñu ay activité sportive euh, dañu baaxoo fii ci Sénégal am yenn pesanteur yi wala croyance yi nit bu amee yenn gabarit yi ñu ne ko dafa sujet à certaines maladies bu fekkente ne nag euh, da tuuti tuuti yemamaay comme euh, Fatou Baba mi nekk ci ci micro bi ñu ne la euh, yow amoo yenn feebar yi danga ko def ci sa bopp bi rek tey ji aussi yenn croyance yi mun na jàpp ba élever lim bi nga xamante ne moom mooy masse di am hypertension artérielle parce que quoi qu'on puisse dire gars yi mënuñu def un tout petit peu ñenn ñi ma ko sañ a wax mënuñu def la part des choses maladie certainement am na rapport wala amul rapport ak morphologie de la personne xanaa rek nga indi ñu ci ay gindi. Euh, jërëjëf euh, soxna Fatou euh, déjà laaj bi nga laaj dafa am solo nit ki déjà mën naa am corrélation comme mën naa bañ am corrélation mm-hmm. léegi nit ki ni mu toll mën naa am corrélation parce que dafa am ci biir tension am na yenn ñuy wax ce qu'on appelle des facteurs de risque. d'accord yoo xam ne nit ki bu ko amee. ngir mu amee tension mun na koo yomb lool. Mm-hmm. ci facteur de risque yooyu noonu bokk na ci nit ki nga xam ne tey jii nii lii moom moo dul yëngatu. Mm. maintenant bu weesoo loolu dafa am ci góor benn at boo xam ne boo demee ba àgg ca tamit yow mën ngaa amee li nga xam ne moom mooy tension at boobu noonu comme boo xoolee góor maanaam bu demee ba at lu jë bu demee ba am ay at yu jëm ci cinquante cinq jëm kaw. kooku noonu noonu même bu dee fa amuñu tension wala dara kooku mën naa bokk ci facteur de risque yu tax muy am tension. tout à fait loolu mooy benn. Mm-hmm. li nga xam ne moom moo nekk cinquante cinq ans ci góor bu dee ci jigéen la dafa nekk soixante ans jëm kaw. Mm-hmm. maintenant bu weesoo loolu noonu imagine nit ki am loolu ba pare boole koog am benn poids. tout à fait poids boobu noonu noonu lan lañ ci naatamle poids boobu noonu noonu lii ni moom mooy dafa am graisse mm-hmm. te graisse boobu noonu waxoon naa leen sànq ne leen lépp lu jëm ci wàllu lu jëm ci sucre ba ba mu bëri wala graisse bu bëri wa ilaa xorom su bëri day concourir ci li nga xam ne mooy joxe tension mm-hmm. kon kooku noonu tamit nga xam ne dafa am ce qu'on appelle soit obésité la wala mu nekk en surpoids mm-hmm. kooku facilement tamit mën naa def li nga xam ne moom mooy feebaru tension. il est exposé ou elle. il est exposé maintenant am na ñenn ñoo xam ne mën ngaa ndaw mën boole ko am tension loolu tamit. Mm. ci fànn bi ma wax ni maanaam am mën naa nekk comme mën naa bañ a nekk. Mm-hmm. fànn bi nga xam ne nit ki ndaw c'est pas parce que da ndaw rek que maanaam. ci euh, tension tension li nga xam feebaru moom mooy nag yow yow kii woo ci mm-hmm. exposé mm-hmm. mën naa ndaw boole ko mu am yeneen feebar yoo xam ne moom mooy indi jafe-jafe ku mu amee tension imaginel tey jii nit ki mën na ndaw mu am insuffisance rénale mhm. insuffisance rénale boobu mën naa conclure à ce que après mu am feebaru tension mhm. nit ki mën naa ndaw ba pare mu am yenn feebar yoo xam ne c'est plus hormonal am na yenn feebar yoo xam ne nit ki mën na ko am jafe-jafe lu jëm ci ay wax boobu mbiru hormone mhm. tey jii nii nii ki nga xam ne dafa amee goitre supposons ki nga am ne ki amee goitre mën naa dem ba jëmmi jamono ak goitre am bi ni mu mel mu dem ba jëmmi jamono goitre boobu indil ko li nga xam ne moom mooy problème mu tension. tout à fait loolu moom mooy problème mu hormonal. Mm-hmm. mais lu ci mënti xew daal ak lu ci mënti doon nit ñi nga xam ne dañoo amee yaram comme nit ñi nga xam ne amuñu yaram góor nga wala jigéen nga li ci gën a am solo moom mooy lan sa yaram nga feebar ak nga bañ a feebar da nga ko war a di saytu li nga xam ne moom mooy. minimum minimum chaque six mois. Mm-hmm. chaque six mois nga doxal. daal di jël li nga xam ne sa yaram bi yóbbu ko hôpital balaa balaa feebar di jël sa yaram bi di yóbbu hôpital <laughs> ñaar yooyu am soit da yóbbu sa bopp hôpital wala ñu yóbbu la hôpital ñu la hôpital waaye nag ñun sénégalais nag li ñu tàmm moom mooy ñu jagat jagatee ñu euh, <laughs> de balaa ñoo mën a dem hôpital da ngay gis koo xamante ne sax day feebar dem pharmacie jël ay garab jël ay garab jël ay garab balaa moo mën a dem hôpital comme comme tu dis rek euh, ñu daal di woo ci daal di koy yóbbu day fekk peut euh, foofu traitement bi mu bi mu bi mu waroon laaj ak bu ko lañ koy daal di jagleel euh, mbokku auditeurs yi ma fàttali ne yéen a déglu seen émission bii di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte am bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Babacar Diop docteur Babacar Diop nekk médecin urgentiste waaye waxtaan wi tey daal di koy samp ci li nga xamante ne moom moo di hypertension artérielle ndax euh, li muy def euh, ci loraange jéggi na dayoo tey ñu puus rek wax ci li nga xamante ne moom mooy conséquence hypertension artérielle euh, ñi ngi naan soo ko amee bu traitement bi baaxul wala buñ ko yéexee mun nga am peut-être insuffisance rénale wala maladie cardiaque daf lay daal di yomb taxaw ci conséquences yi mën a jóge ci hypertension artérielle docteur Babacar Diop jërëjëfati soxna Fatou defe naa ni partie bii ñuy waxtaanee moo nekk partie bi nga xam ne daanaka mën nañ wax ne moo gën a triste ci li nga xam ne moom mooy wàllu tension. Uh-huh. mooy partie bi nga xam ne moo dugg ci wàllu con li nga xam ne moom mooy complication. complication yi waaw. ndaxte complication yi wax dëgg yàlla loo xam ne bu doon dañ koo prévenir mën naa ñàkk. Mm. waaye comme nag wax dëgg yàlla. ñàkk nañu Pastef ñàkk Pastef boo xam ne ba agsi ci li nga xam ne moom mooy complication yi wax dëgg yàlla dafay xaw a doy waar maintenant nag ci complication yooyu noonu nga xam ne ni ñu koy waxee tension déjà sànq li ñu leen waxoon mooy pression bi nga xam ne day am ci raakool bi raakool bi nga xam ne moom mooy yóbbu deret bi te raakool bu noonu boo xoolee ci kaw li dale ci bopp bi ba ci tànk yi ci suuf am na raakool yi fa yóbbu deret maintenant raakool yooyu du yóbbu direct comme nee nañ pression bi dafa yéeg pression yooyu noonu noonu complication itam dañ koy tàmbalee li nga xam ne moom mooy ci bopp bi jëmale li nga xam ne moom mooy ci suuf ci ci tàng bokk na ci complication yi nga xam ne mooy am ci bopp bi comme ni ñu koy waxee lu bari moom mooy ñu wax naa naan ABC moom la ñuy wax accident vasculaire cérébral. Mhm. ay accident vasculaire cérébral yooyu noonu am na yenn yoo xam ne xëy na euh, pour pour li nga xam ne moom mooy tension bi moom mooy yéeg moo koy indi. am na lenn loo xam ne tension bu yéeg boole kook li nga xam ne moom mooy jafe-jafe cholestérol moom moo koy indi. Ah. waaye lu ci mën ci doon daal wax dëgg yàlla tension bokk na ci lu bare bare li indi jafe-jafe yooyu. Mhm. maintenant bu ñu li nga xam ne tey jii nii nii moom mooy accident vasculaire cérébral yi nga xam ne ñu ngi koy tuddee AVC. dañuy wàcc li nga xam ne tey jii nii moom moo ñëw ci li nga xam ne mooy xol bi. xol bi xol bi tamit wax dëgg yàlla tension bi li muy gën di yéeg xol bi li muy daw day gën a bari. te xol bi li muy gën a daw lu muy gën di bari xol bi day dem ba jëmmi jamono day yaatu bu baax a baax a baax a baax. yaatu bu baax a baax a baax boobu noonu day dem ba tamit mën naa dem ba jëmmi jamono mu indi ay jafe-jafe nit ki mën na jëlee ce qu'on appelle mm-hmm. moom mooy wane ni xol bi na doon fonctionné fonctionné te ko normalement instant yi dafa ëpp ci li muy fonctionné mm-hmm. donc daf koy indil li nga xam ne moom mooy jafe-jafe après mm-hmm. maintenant loolu noonu moom moo concerné li nga xam ne moom mooy xol bi suñu paree ci xol bi mën naa indil li nga xam ne tey jii nii moom moo nekk ci wàllu roño yi ree yi parce que ree tamit nit ki lu mu mën di lekk boo xoolee ci reins yi lañ koy seggatale mm. te reins yi nga xam ne moom mooy ce qu'on appelle un luturateur en tout cas bu ñu jëloon tey jii cent pour cent li ñuy lekk daanaka reins yi quatre vingt ou bien quatre cent pour ne bi daanaka moo koy raxas ba mm. mooy deret beeg yooyu moom moo koy raxas mm-hmm. maintenant rein boobu noonu noonu tam di raxas deret bi bu ñu gisee ni bi nga xam ne deret bi daf koo am ci li nga xam ne moom mooy tuyau yi doole boobu noonu dafa ëpp ba ëpp ëpp gu doy waar rein bi nga xam ne moom moo koy nettoyé day dem ba jëmmi jamono rein bi tamit day sonn su sonnee mi nga xam ne daf ko war a nettoyé du ko nettoyé noonu loolu noonu day dem ba benn instant mu indi li nga xam ne moom mooy jafe-jafe tension mu indi li nga xam ne tey jii nii moom la ñuy wax insuffisance rénale maintenant bu ñu weesoo li nga xam ne tey jii nii moom mooy insuffisance rénale yooyu noonu tey jii day dem ba ci li nga xam ne moom mooy nit ki sëyu ba ci li nga xam ne moom mooy sëyukaay mën naa am jafe-jafe ndaxte tension bi bu yéegee ba yéeg mm. ni muy ni muy yàqee li nga xam ne moom mooy bopp bi yàq ko xol bi yàq ko reen yi sëyukaay yu nit ki tamit noonu la koy def mm-hmm. day dem ba jëmmi jamono ba nit ki maanaam na mu waree yéegee boppam daanaka du ko yëgee ni même. ah docteur loolu moom sérieux na di ci conséquence. waaw gis boo xoolee ni maanaam sérieux na sérieux boo xam ne moo tax nit ki foo mën ci toll. Hmm. wax dëgg yàlla saytu sa yaram daf lay war. tout à fait. am na lenn loo xam ne heure boo ko xaaree rek yow di nga maanaam di ci am problème yoo xam ne yow daanaka yow xalaatoo woon ne mën nga caa àgg. Hmm. malheureusement nag ñun à chaque instant comme ni may waxee ñi ñuy recevoir majeure partie bi. boo xoolee d' mhm. mhm. accord euh, xanaa dañuy profité rek ubbi wàlle foofu tey boo ñu doon defal euh, benn petite évaluation wala nga taxaw defal ñu benn jàngat euh, ci jàngoro bii di hypertension artérielle fii ci Sénégal par rapport ñi muy dal ndaw ñi mag ñi góor yi jigéen yi ban situation la toll fu ne nii Euh, jërëjëf euh, soxna Fatou ci laajte bi euh, wax dëgg yàlla bu ñu xoolee lu jëm ci feebaru tension muy Sénégal ak li nga xam ne mooy monde bi en particulier mm. ni ñu waree déjà defee diagnostic je donne juste des chiffres allez-y tey jii nii boo jëloon ni maanaam bu dee monde entier bi yëpp benn milliard ak ay millions yu teg ñoom ñoo amee li nga xam ne moom mooy jafe-jafe tension ci benn milliard boobu noonu noonu ak yu teg yooyu noonu boo xoolee même pas sept cent millions en tout cas d'après les chiffres yi nga xam ne moom la OMS publié maanaam même pas sept cent millions ñoom ñoo xam ni amee nañu tension ci benn milliard ak lu ëpp mm. boo xoolee sept cent millions après ñoom boo xoolee ñoom ñoo xamee ni am nañu tension te ñooñu noonu ci biir sept cent millions yooyu noonu noonu nekkul ñëpp la ñuy toppatoowee tension toppatoo bu optimal. toppatoo bi wax. toppatoo bi nga xam ne moo war. Mhm. waaye loolu tamit li ko li koy waral tamit xam nga bari na nee naa la ku ku yorul mille franc yoo jëndee wax dëgg yàlla lekk doo jël doo doo doo doo am vingt cinq mille wala leneen loo jëndee ay garab. loolu leer na loolu tamit bokk na ci. Mhm. maintenant boo xoolee comme mhm. exemple ñun suñuy urgence. nga xam ne malade yu ñuy yu ñuy recevoir. Mhm. tey jii boo xëyoon tey jii nga recevoir li nga xam ne moom mooy vingt malades ci journée bi mhm. jàppal ni maanaam quinze ci vingt malades yooyu noonu noonu noonu boo xoolee douze wala quinze malades yi ngay recevoir ñëpp daanaka ñëpp am problème jafe-jafe tension. comme pourcentage bi élevé na. kon boo xoolee ni maanaam pour tension ni mu mel maanaam doy na waar jéggi na jéggi dayoo bu baax a baax baax. te mhm. lenn benn benn benn benn mbir rek moo ci xaw a doy waar jamono ji nii moom mooy commencé di jaaxal li nga xam ne moom mooy moo ñuy jaaxal jamono ji. mooy. mooy tension bu njëkk ba dañ daan wax ni mag moo koy amee. bu njëkk ba dañ doon wax ni ah boo demee ba am cinquante ans soixante ans après jëm kaw ci la ñuy xool naan wuy moom amee na tension wala ameewul tension waaye léegi de plus en plus dañuy gis ni mm-hmm. ay xale yu ndaw ñoom ñooy amee tension mm-hmm. am na ñenn ñoo xam ne ay ay ay vingt ans vingt cinq ans am ñoo xam ne trente ans mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu doy waar doy waar doy waar mm-hmm. waaye nag li koy du ñu bett li tax du bett moom mooy lekkin wi ndaxte li nga xam ne tey jii nii moom nga war a lekk pour am sa ja wér gu yaram mhm. lekkoo ko mhm. te normal wax dëgg yàlla yenn feebar yi nga xam ne yaa ngi ko waroon a amee ci li nga xam ne mooy cinquante ans soixante ans ba soixante dix ans mhm. sa dundin wi ngay dundee da koy am ci li nga xam ne moom mooy vingt ans vingt cinq ans bokk na ci feebar yooyu bi nga xam ne tey jii bu ñu xoolee majeure partie ñi amee tension te nekk ndaw ñi koy amee bokk na ci li nga xam ne moom mooy insuffisance rénale boo xoolee maanaam ci yi recevoir ñu bëri ñi nga xam ne dañoo amee tension nekk ndaw mhm. boo xoolee ba xool ci biir da gis ni dañoo am ce qu'on appelle une insuffisance rénale mhm. et wax dëgg yàlla prise en charge insuffisance rénale bi ak dëkk bi ni mu demee metti na daanaka doy na waar ndaxte wax dëgg yàlla c'est une prise en charge comme je le dis assez lourde mhm. nit ki ñu war a dialyser imaginer mu war a fay li xam ne moom mooy quarante mille ba soixante dix mille par jour ci li nga xam ne moom mooy jalis boo xam ne war nga faa def ñaar nga loolu doy na waar. loolu na waar. wax dëgg yàlla ñu ne. Sénégal du du du ñëpp ñoo mën a du ñëpp ñoo mën lu ni mel. dëgg la mais mais mais docteur euh, benn petite brèche rek justement euh, foofu nga foofu laay. Il fut un temps docteur Abd euh, Babacar Diop euh, comme ni nga ko waxee rek lu ci bëri dañ ko doon nemmeeku ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñoom ñoom ñooy mag yi tey bu ñu demee ba nga xamante ne daanaka euh, nekk na ci ci ci ci ci ci ci ndaw ñi foofu tamit xel daanaka lu doy waar la lu doy waar. ah wax dëgg yàlla daan naa daan naa dégg ay mag di wax ñu ne wax dëgg yàlla xale bu demee bay. bay lekk lekk lekk lu mag bu demee ba jëmm jamono dina feebar feebar boo xam ne moom la mag war a feebar mm-hmm. waaw loolu rek moom mooy wane ni bu ñu dee jëf li nga xam ne wax dëgg yàlla daanaka boo amoon yenn at yi nga ko daan jëf mm-hmm. bu ñu bu ñu jaaxle ci bu ñu amee feebar yi nga xam ne mag ñi ñëw ko daa am mm-hmm. encore une fois aussi bien si suñuy ndaw yi fi nekk jëkkee ko ci man ak li nga xam ne moom mooy mag li ñu war a xam moo ñu bàyyi def très attention. Mm-hmm. quel que soit alpha bu ne man ndaw laa wala man mag laa feebar bi kee lay dal wala kii lay dal. Mm-hmm. defal attention ba nga xam ne nga saytu sa wér gu yaram. loolu noonu noonu dafa war a nekk loo xam ne lu normal warul nekk loo xam ne dañ daan noo diw dafa feebar ba pare rek nañ leen ko dem yóbbu hôpital war ngaa jékki-jékki soxna Fatou mu xëy benn jour rek daal di sàcc boppam nang mm-hmm. dem daal di dem hôpital bu demee hôpital ne ah dara méttiwu ma nag damaa ñëw juste pour xool sama yaram. d'accord defe naa ni loolu bu ñu ko matalee soxna Fatou defe naa ni yenn yu bëree bëree bëri bëri yi nga xam ne aussi bien day dal mag ñi wala day dal ndaw ñi. Mm-hmm. ñu borom dinañu ci jàppale te loolu tamit bokk na ci li nga xam ne moom mooy jàppale kër docteur. ba nga xam ne yenn état complication yi nga xam ne dañ ciy recevoir malade yi ñu mën cee mm-hmm. wax dëgg góorgóorlu ba mu mën a ba mu mën a néew bu baax a baax a baax a baax mhm. euh, euh, jox la kàddu rek ci tey boo doon ñaax askan wi ci lépp lu jëm ci wàllum prévention ndax wax nga ko hypertension artérielle li muy jur ci complication bëri na euh, maladie cardiovasculaire yaa ngi fii AVC dialyse yi moom xam nañ ne sénégalais yi lambda yi seen poche permettre lu ñu leen ñu dem consultation tous les six mois maanaam def traitement dialyse nag moom kenn waxaale ko xanaa dañuy sabablu rek ak suturlu loolu tey boo doon focaliser wu ci lépp lu jëm ci wàllum prévention laata ñuy yegg foofu lan nga ñuy wax. Euh, jërëjëf euh, soxna Fatou. lu jëm ci wàllu prévention nag wax dëgg yàlla comme déjà waxoon nañ li nga xam ne moom moo mën a indi li nga xam ne tey jii moom mooy feebaru tension. Mm-hmm. kon li nit ki bu dee xam nga li nga xam ne tey jii moom nga war a def pour mucc ci li nga xam ne mooy feebaru tension man je me dis nit ki. war nga cee góorlu ci loolu. Mhm. lu jëm ci lekk yi surtout soxna yi. parce mhm. defe naa ni góor ñi toggaluñu seen bopp seen bopp ñu lekk. Mhm. bu dee yow sa boroom kër daf laa takk indi la ci kër gi. wax dëgg yàlla yow ngay togg di ko defal dara loo xam ne bu ëllëgee yow yaa ciy jëlee ay mer. lu jëm ci wàllum sëy wala lu jëm ci leneen ak leneen defe naa ni kooku mu sàmm liy dugg ci biiru borom këram lu am solo la. responsabilité majeure partie bi nag. en tout cas au Sénégal dañ ci ñaax li nga xam ne moom mooy soxna yi. Mhm. ndaxte li ñuy lekk bu ñu xëyee ba keroog ñuy tëdd. daanaka lu ñuy indil ay jafe-jafe li tension <laughs> daanaka nag loolu nag moom wax dëgg yàlla ñi ci war a wax ñi ngi ciy wax matin mhm. midi soir mais daanaka gars yi dafa mel ni voilà loolu seen seen seen seen yoon néew ci mhm. nañ ci bàyyi xel toujours lekkin wi moom mooy lan ñu moytu prévention la ñu wax kon nañu moytu lekk bi nga xam ne dafa am xorom bu bari mhm. nañu moytu lekk bi nga xam ne dafa niin lu bari mhm. nañu moytu lekk gi nga xam ne dafa saf suukar bu bari mhm. bu weesoo loolu nañuy boole tamit di yëngatu bu ñu yëngatoo ba pare nag maanaam ba mu am six mois wa mu am un an wala deux ans ñuy doxantu ndànk di favoriser li nga xam ne moom la ñuy wax ay bilan de dépistage mhm. nga jékki-jékki rek daal di jël li nga xam ne mooy sa pap wala jël sa yaay daal ne ko pap nañ doxantu hôpital même si mag ñi ñemewuñu hôpital mhm. nga naxtaan ko nank wa ilaa nga am kenn koo xam ne nga koy waxal lu fekk ci biir kër gi su ko fekkee ci biir kër gi wax dëgg yàlla defaral ko analyse defaral ko yenn xool examen mag yooyu noonu yëpp ba lu ci war ñu teel koo saytu bu ko defee ñu bañ a egg ci li nga xam ne moom mooy état bu complication étape boo xam ne étape bu doy waar la ci jamono di ñu toll. Mhm. Euh, euh, rawatina euh, traitement bi ak prise en charge bi ci pas donné. ah wax dëgg yàlla sax na ndegam loo xam ne ku yor xaalis bu baree bare bari di sant suñu borom bu baax a baax a baax moom parfois mooy jékki-jékki naan laan docteur ah garab bi nga bind sax na de. waa imaginer ki nga xam ne wax dëgg yàlla ñetti ñetti ñetti ñetti lekki nii mooy ndékki ak reer mënu koo matale këram. Mm-hmm. ñooñu ce sont des personnes le plus souvent qui sont des ce sont des personnes condamnées. Mm-hmm. moo tax ndax wax dëgg yàlla def de telle sorte que ñu bañ a àgg foofu ni mu valable ci ki nga xam ne am na les moyens. ba di ko matale noonu la valable ci ki nga xam ne amul ay moyen mm-hmm. parce que def naa ni ku mën a yóbbu boppam hôpital chaque instant ngir dem di saytu ngir bañ a feebar te am nga suñu borom askane na la doolay poos ba nga mën ko def kon imaginer ki nga xam ne tey jii nii amu ko. Mm-hmm. kooku moo war a def encore beneen effort supplémentaire plus que kee nga xam ne am na ko parce que kee am xaalis moom mu demee supposons ba àgg ci yenn complication xëy na mën naa génnee xaalisam teg daal di faju ci yenn faj yi. Mm-hmm. mais ki nga xam ne amu ko su demee ba àgg ci yenn complication yi daanaka rek wax dëgg yàlla dañ koy teg rek di xaar mu mu suñu borom daal di koy moom. Mm-hmm. Mhm. d' accord mu mel ni le message est est est, euh, docteur Babacar Diop lu olof Njaay di wax euh, damay dégg sama maam di ko wax fàggal la expression bi. mooy lan noonu fàggaliku balaa ngaa mooy. balaa ngaa lakkale waaw wax ah. xel la. toujours prévenir. Mhm. bu yu doy li foo mënti toll moom mooy def de telle sorte que lii di feebar boobu noonu mu bañ a ñëw mhm. comme yoroo loo fajoo mhm. ah wax dëgg yàlla li nga yor as néew da nga ci jéem a def de telle sorte que nga bañ a feebar d'accord waaye nag in inverse bi nag la ñuy dund malheureusement yoroo loo fajoo ba pare yow li nga yor noonu noonu da nga ci utiliser pour daanaka pour feebar. Mhm. sant ko gërëm ko bu baax a baax ma fàttali ne rek li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca xanaa rek boo amee kàddu gu mujj boo ci sànni docteur Babacar Diop. waaw jërëjëf jërëjëf ci soxna soxna Fatou. wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax a baax di leen gërëm. Mhm. ngir euh, dayoo bi nga xam ne jox ngeen ñu ko ngir ñu war a mën a waxtaan ak li nga xam ne moom mooy suñu population. Mhm. ñun de wax dëgg yàlla benn mission dong la ñu am. gannaaw ba ñu demee woon sàkku ji xam-xam dañoo ñëw ngir jàppale li nga xam ne moom mooy suñu population bi nga xam ne heure bu ñu xëyee ci ñoom la ñuy yeewu. Mhm. te daanaka bu ñu liggéeyee ba wàcc tamit ci moom lañ ci ñoom la ñuy delluwaat. daf ñuy indil ñun ñi ay jafe-jafe mhm. waaye bu ñu wéree tamit ñun ñi tawfeex dong lañ ciy am mhm. kon nag wax dëgg yàlla li ñuy wax rek aidez-nous à vous ndax mhm. ndaxte tey jii man mi wax ak yow xëy na am naa yaay am naa maam am naa leneen ak leneen tey jii soit mën naa concerné keneen waaye man mi tamit mën na maa concerné moo tax bu ñu ko jëlee en charge correctement ba ñëpp suñu population déjà ñu am une bonne discipline daanaka dinañu jàppale bu bare bari bari ba xaalis bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ko doon def ci ngir faj feebar ñu mën koo jël dugal ko feneen mm-hmm. looloo ëpp solo mm-hmm. bu weesoo loolu tamit ñu ngi delluwaat encore une fois di ñaax li nga xam ne moom mooy soxna yi ndaxte je ne cesserai de le dire jigéen ñi nga xam ne tey jii ay jàmbaar lañ nag wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ lool lool lool waaye nag beneen mission bi nga xam ne war nañ koo xam rek moom mooy lan nañu bàyyi xel ci li nga xam ne ñi ngi koy jox aussi bien xale yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci diggu doom ak ñi nga xam ne ñooy mag ñi. d'accord ndaxte lekk gi bu doyee waar dund gi doy waar bu dund gi doyee waar nag feebar yi bari. Mhm. te bu feebar yi baree wax dëgg yàlla yow mi doon togg lekk dootoo ko ndax ndaxte hôpital ngay fanaan di fa yenn. Mhm. kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm. di leen wax incha allah ba beneen yoon jërë ngeen jëf. d' accord euh, sant ko bu baax a baax waaye tamit gërëm ko ci disponibilité am euh, vraiment moom docteur Babacar Diop ma fàtte ne moom moo nekkoon suñu invité suñu émission bi di SOS santé docteur Babacar Diop nag nekk médecin urgentiste di servir foofu sa Fatick euh, fàttali ne yéen ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi. beneen vendredi beneen émission ak beneen invité